ndaje mi tey euh, li mu ko waxee gis ngeen opposition li war a def lépp def na ko dëgg nañu tànk yu dëgër waaxu nañu dukki dëkk nañu xelu nañu sax pour élection yi mën a am mais gars yi Macky Sall la kay nitam ndekk fay layam layam yi rek li gars ñuy wax layam layam yi rek pour bañ affaire yi am deux mille vingt et du noonu pour mu bañ am mille vingt et léegi nag li juriste si wax donnez-moi les faits je vous donne le droit ça lui a donné les faits je crois que vous pouvez apprécier justement comment les choses se sont passées loolu rek moo doon mbir mi leeral leeral nañu mbir mi ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp yeewi leen jàmm ak salaam n'est-ce pas président ba beneen yoon comme ni ñu ko waxee mécanisme yi fu ko taxawalee. wax na CRD mi ngi fi CRD. CRD mi ngi fi jot naa mi ngi fi mi ngi fi. Bruno. Bruno Derneville est là. Bouba Diop est là ah, c'est ça. c'est ça. c'est ça du ñuy njëkkee gannaaw bi leen ziare si gi nga xam na ni pour jullit yi moom la tàmbali démb ak tey. di wax ni ñun plénipotentiaires yi ñu ngiy gërëm bu baax leaderu opposition bi nga xam ne ni tey ñooñu jox honneur ñu ñëw toog fii présenter leen texte bi nga xam ne nii moom moo war a maanaam nekk si li ñu tuddee point de presse di wax ni yéen journalistes yi ñu leen di nuyu di leen gërëm si seen teewaay pour ñëw couvrir li nga xam ne nii mooy point de presse di wax ni tey waxtaanu tey bi jëmul fenn lu dul si mbiru élection yi nga xam ni muy dàq bi te boobaak léegi ñu tudd ko élection locale muy commune yeeg yi nguur Macky nekk di ko reporté tey ñu si ñetti yoon ñu bëgg wax ni rek euh, force démocratique yi nga xam ni nii ñoo nekk ci opposition d'accord ñu benn yoon ñu yóbbu élection yi Euh, deux mille wax ni bu fekkee ni démb d'accord nañ si dialogue politique bi ñu reporter élection yi yóbbu ko premier décembre yóbbu ko plus tard vingt deux mars parce que doon doon waxtaan pour maanaam audit de fichier bi ak évaluation bi te ñu jublu si ba d'accord si ñu am temps bu baree bare pour def ko yàlla def pandémie bi ñëw feebar bi ñëw mbas mi ñëw tax doxin bi yéex yéex na ba tey jii ñuy wax ni élection yi est mën naa nekk deux mille vingt un wala deux mille vingt deux ñuy wax opinion nationale bi ak internationale bi tey bu ñu tolloo si wax élection yi dañ koy def deux mille vingt deux pouvoir bi di ko wax nekkul responsabilité kenn pour pouvoir ndax opposition bi lu ñu waroon na maye maye nan ko. maanaam duñu war auditer duñu war évaluer ñu ni nanu dàq élection yu premier décembre pour mu dem mars au plus ñu wax nii ah bu fekkoon ni gannaaw pandémie bi li mu waroon doxale doxaloon doxe na ko kon duñu toll fii su loolu ñu bëggoon rek wax lu tax ñu wax loolu ndax xam nga bi mbas mi ñëwee euh, mars la woon mais fekk na avant mars mois de février 2020 si 6 février li taxoon ñu war def audit beeg fichier bi ñu tudd tubaab tuddee ko terme de référence bind nañ ko ko jébbal ko président de la république mbas ma ñu ngi tëj maanaam mbas bi ñu ngi dugg mois de mars ñu tëj ñu arrêté dialogue bi 19 19 mars ñu toog juróomi weer ñu nangul ko gouvernement bi mais reprendre nañu dialogue bi depuis le 19 août 2020 te bi ñu ko reprendre président la république si boppam moom moo laajoon ni nañ ko defal rapport dialogue bi si rapport boobu nga xam ne ni ñu ngi feu général Niang ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana woyofal suuf si koyam moom dafa waxoon président ah maa ngi lay jox rapport bi kër waaye xamal ni évaluation bi processus électoral bi ak audit bi dafa am importance te dafa am dayoo si bi nga xam ne nii walla luy fixé élection yi comme boobaak léegi dox ñu dox bu gaaw commission politique bi ñu ngi lay wax ni la il faut que point yooyu nga dox dox bu gaaw pour ñu defal vingt six août mais mu wax ko ni ko dama lay fàttali sax yónnee ne woon la lettre 6 février 2020 pour wax ni pare nañu pour nga tàmbali loolu donc defuñu ko defuñu ko duñu toog ba janvier 2021 ñu doog a recruter yi ak évaluateurs kon tey jii bu fekkee am na koo am ne ni dafa yéexal maanaam mbir mi pour ñu bañ dem élection nekkal kenn ku dul régime Macky Sall mais ñu ni ñun bi ñu ko xoolee ba biir même bu fekkee ni même bu fekkee ni pandémie ñëw na ñoom daamu nañu dawuñu doxuñu ñu ni ba tey boo xoolee diggante bii ñu nekk ñu nekk avril ak décembre mën nañ faa organiser élection locale yi xëy na sax question date élection question politique la mais dañ leen ko bëgg rek wax ne ni opposition lépp lu muy wax mën na see teg baaraamam maanaam mën nañu génn li ñuy wax technique ñeenti maanaam étape moo am tey jii avant ñu dem élection bu si njëkk bi mooy évaluation processus tàmbali na le 2 le 2 avril